yow mii pam Moussa ak kuy sénégalais mën nga def programme moo xam ne da nga ne dama bëgg Sénégal am ay tali Sénégal ay industrie mais nan la loolu xam-xam la te xam-xam boobu Amadou Ba moo ko am. mais jigéen ñi dañu leen a dig lu am solo benn boo xam ne day def cent cinquante milliards pour uniquement pour waa gis nga Macky Sall na mu ñëwee woon bàyyiwul kenn Amadou Ba noonu la def nee bu dee jigéen ñi am na banque boo xam ne cent cinquante milliards la siy def mu nekk une banque dédiée. bu dee màgget ñi am na loo xamante ne nii nag mu loolu mooy surprise bi dencal na leen lu ñuy wax pension prestation vieillesse maanaam sénégalais boo xam ni même boo musul a liggéey boo amee juróom benn fukki at juróom am loo xam ni ni ñu def si bourse de sécurité familiale yi dañ la koy compal te kenn du la ko compal si ñetti weeru weeru ne lañ la koy compal. lan moo tax kilifa diine yi choisir Amadou Ba. yaram tegginam valeur yi nga xam ni moom la sénégalais yi am mu nekk ak mu mu am ko ba pare dig leen ni. li nga xamante ni ne mooy tarixa yi nga xam ne mooy cëslaayu Sénégal ceinture de feu bii ñu wër ndax nag ko amul foo wéeru da ngay neex a bëmëx gis nañ ni li téye Sénégal ku ko xamul ñàkk ngaa xam li ëpp solo Sénégal muy tarixa yi tey jii kenn mënu këf ab murit dugal ko ci leneen kenn mënul këf ab tijaan dugal ko ci leneen kenn mënul këf ab laayeen dugal ko ci leneen kenn mënul koo xamante ni noyewul ku dul Baay Ñas dugal ko ci leneen loolu ñu am nag te ñeneen ñi amuñu ko mooy li nga xamante ni tey jii moo tax terrorisme amagul benn doole Sénégal ndax fu ñu fëggee bunt ka fa nekk yar nañ ko ab ndaw da nga koy yar ci xale na rëdd day mel ni rëdd boo rëdd ci ciment bu ñu tabax dootul dañati bu mukk pour ma jeexal rek pour ma jeexal seen ànd baal ma rek pour ma tey ñu gis contentement waa Tivaouane bi ñu def bi ñu leen gisee yéen leader yi Tivaouane yéen ñëpp ngeen dajaloo loolu yéen ngi lan ngeen ñun amuñu lu dul Sénégal amuñu lu dul Tivaouane dëgg la nag ñun Macky Sall bi ñu nekkaloon mooy suñu mentor ci wàllu politique moom la ñu àndal yàgg na wante ñun kii nga xamante ni mooy Amadou Ba dañu partagé valeur yooyu ndax moom aussi Macky Sall mooy mentor politique am ba tànn jotee mu tànn ko joxoñ ko. parce que nak dañuy yaakaar ni nit bu la wanee loo xamanteni ne nii dal na xel la koy war a continuer foofu rek nga war a teg sa tànk kon nag ñun waa Tivaouane amuñu lul Sénégal amuñu lul dul ñoo bokk ndey ñoo bokk baay wane nañ ko ci comité électoraux yi toog waxtaan def un programme commun di ko exécuter nii nga ma gisee nii ma ànd koog Ablaye Ndiaye Ngalgou le maire Diop si mi ngi ñëw fekk ñu si ànd ak l'honorable Gamou Fall ñeneen ñi ñëw fekk ñu tey jii nag ñu génn dëgg-dëgg won waa Tivaouane ni leen benno bokk yaakaar bi ngeen xamoon taxawaay ba ñu amoon ci Macky Sall bu ko raw moom la ñuy am ci Amadou Ba ngir mu am ndam. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp bon comme ni ko suñu frère Mamadou Diagne Sine Mbengue waxee léegi yàlla dafa dogal ñu ubbi campagne bi depuis presque une semaine gisuñu les responsables du de Benno Bokk Yaakaar barki démb ñu tenir benn réunion monté suñu comité électoral jàpp taxaw dañuy war a taxawal benn caravane pour génn wan waa Tivaouane wan waa Sénégal.

changement monnaie boobu dina tax Sénégal dugg si guutu goo xam nga xam fan lañ jëm dina tax ndax booy booy changé monnaie la yàlla day dogal nga am ressource yoo xam moom ngay exporté ñun jàpp nañu Sénégal exporté wuñ gerte donc exporté gerte defe ne loolu mënul téye économie donc raison pour ñëpp ñoo war a jóg taxaw jàppale le candidat ak Amadou Ba parce que c' est le meilleur candidat c' est profil c' est un homme donc jàppale ko ko mooy jàppale li nga xam ne Macky Sall bon démarrage campagne bi tay gis ngeen ñun ñëpp ñoo and tous les leaders ñoo and vraiment and bokk ndey bokk bàyyi bu mu di ndam li normalement Tivaouane warul compliqué parce que toutes les forces vives de Tivaouane ñoom ñoo and donc normalement warul compliqué donc pour pour kenn jaawale yëpp bopp fas bi la rek vraiment Amadou gagné dina bax ci Tivaouane parce que bëgg na Tivaouane te te te te dëkk il faut nga attan ko ci candidat yi ñu gis yëpp 19 candidats yi ñu gis man Amadou la ci gis ni attan na dëkk bi am na un programme cohérent am na un programme chiffré xam na fi bi dem xam na fi mu fekk dëkk bi xam na li mu bëgg ci dëkk bi te xam na ni mu ko fa yóbboo ñi des ñëpp dañuy wax ay programme rek mais chiffré wuñ ko waxuñu fan lañ koy demee te bu fekkee ni ko yow boo demee ba jël pouvoir bi ngay toog a toog réfléchir foo ko jëmee defe naa di nga perte temps bu bari te fi mu ne nii waruñoo perte temps dañuy war a jëlee dëkk bi fii bu nekk yóbbu ko fa sori te man Amadou Ba rek laa gis ci ñi mu am un programme cohérent qui peut faire qui peut transformer le Sénégal définitivement avec une transformation structurelle qui permet quand même une création massive d'emplois wax na ni un million d'emplois lay créer et wax na ñu ngi koy jaar pour créer ko mu daal di leer naññi ñëpp xam na ni li wax c'est des c'est un programme hein, spécifique, mesurable, réalisable et lié au facteur temps. loolu mooy programme bi nga xam ne ko apprécier donc vraiment loolu de ñu jàpp bokk ndey bokk baay xam euh, président président Amadou Ba moom moom mën a liggéey bi nga xam ni président Macky moo ko defoon parce que ñoom ñaar ñoo àndoon mu nekk nag ku ko déggal koo xam ni que vraiment ci PSE bi liggéey na ci lu bare bare bare kooku moo ko mën a eggale te il faut que ak loo démarré da koy eggale ndax 2015 2035 mooy programme moo doon programme pour yóbbu Sénégal ci émergence donc il faut liggéey programme bi moom moo ko mën a eggale ñu jëm ci émergence ñëpp gis seen bopp jëf jëf. Cheikh Marco maa ngi nuyu ñëpp am kontaan boo xoolee fii rek ñi fi taxaw rek doy na kontaan mais li ñu ñaan waa Tivaouane mooy seeni doom ñoo fi nekk jàkkaarloog yéen am soxla am yitte yaakaar seeni yéen yaakaar ñu kenn seeni voix lañu yaakaar seeni carte lañu yaakaar bu ñu génnee si naaj bu tàng bi heure koor ñëw fii yaakaar waa Tivaouane a tax ndax ñun lu ñu am indi ko Tivaouane muy man muy Ablaye Ndiaye Ngalgu muy Abdou Ndéné muy jaañ si muy seen bu ñun ñëpp lu ñu am fii lañ koy def kon yun dañoo bëgg ñun lu ñu am dañ koy bokk ak yéen dañoo bëgg nag li nga xam ne ni mooy suñu soxla ngeen def ci seen fulla def ci seen fulla ndax Sénégal moo soxla bu Sénégal soxlaa nag ñëpp dañuy jàpp ne que Sénégal moo soxla tey du heure waxtaan tey du heure wax dañu bugg rek wan leen ne que li ñu nit ñii di wax teguñu ko si yoon li ñu doon wax léegi-léegi ku am programme da nga koy génnee di wax wante sosal du programme wax bu ñaaw du programme xam nga lan la ñuy wax lan mooy jëriñ Sénégal cinq ans yi ñu jëm lan la ñuy defal nit yi lan la ñu defal mag yi lan la ñu defal yi lan la ñu def ci bi lan la ñu daara yi lan la ñu loolu moom mooy wax ji mais wax ji du ay saaga wax yi du ay xaste wax yi du leneen li ñu bëgg daal ñoom gàmmu faale ngi fi parce que responsable la bu nekk fii tamit ci biir Tivaouane mu jaral ko mu bàyyi restaurant tëj ko ñëw taxaw fii adjoint maire yi ñëpp ngi ñëw taxaw ça veut dire seen i doom yëpp ñoo dajaloo ne dañoo bëgg a dëkk ren ñu xam ne ñun ñoo génne suñu bopp ci yéen lañ ko yaakaaree nag na ngeen ñu dimbali li a suuli ci barke Alaaji Maalik loolee ngeen bàyyi ko bu heure bi jotee ngeen ñëw votel sëriñ bi wooteel Sénégal wooteel seen bopp asalaamaaleykum jërëjëf. Euh, Abdoulaye Ndiaye Ngalgum mi ngi noonu waaye gis nañ ni itam euh, Mouhamadou Diagne si meng sànq gis nañu euh, délégation wu Tivaouane ñëpp ah ñëpp a génne kenn ku ci nekk bàyyi fa nga nekkee. Ablaye dama am lu ma lay laaj. yaa ngi en direct sur PMC TV. dama gis ku wax rek ñu ne Ablaye Ndiaye Ngalgum mooy Ablaye Ndiaye Ngalgum lan nga ñu mën a wax ci le président Amadou Ba tey. mais. Amadou may incarné espoir bi. Amadou may incarné continuité bi. ndax yaakaar ni programme PSE le président Macky Sall côté infrastructure bi Macky Sall def ken xamou donc yaakaar Amadou moko ko mën continuer il a un programme il a un bilan malheureusement nak l'opposition biñu ñu amuñu programme amuñu bilan. dañuy xaste rek. xaste ak saagar la ñuy wax. dañu ne xeexee tey li ma laaj jànci naa la ko laaj. waaw ah. yéen leader yëpp ngeen dajaloo seen njaboot yëpp ànd tey lan ngeen ci yëg. mais sant yàlla yaakaar naa ne bu ñu ko concrétiser le 24 mars dinañ xam ne Tivaouane Benno ko moom opposition bi li yaakaar amul. incha allah li mu leen jaral jaral nañu ndax suñu nee na mbir boo nekkee lu mu jaral nit na ko jaral te lii dañoo jaral suñu candidat.

Amadou Ba rek Amadou Ba Amadou Ba rek ca kaw ca kanam rek ay Amadou Ba ca kaw ca kanam rek donc moy mooy euh, Demba Diop si di honorable député Demba Diop si di maire de la ville de Wa wa. Wa gis nga donc tay xamé wuñu kenn comme ni ko Daour di waxee donc euh, mu mel nii tey tey monsieur le maire dox na dox bu am solo donk moom la ñëpp di wax donc waaw yeneen leaders yi lay xaar waaw ndeysaan monsieur le maire Demba Diop si tey dafa dox. voilà tey dafa dox. booy yi dañuy dox dañuy dox comme ñoom. wala nag li nga bëgg nañ ko. ñoom booy ñaan doo dox. monsieur le maire Demba Diop si nee na du dugg ci oto yi booy dañuy dox dañuy dox ànd booy yi moom la monsieur le maire Demba Diop si gis. Ablaye waaw Ablaye ñëw na ci dox donc Ablaye dañoo nekk ci jox bi wàcc seeni oto donc loolu la monsieur le maire ba Diop si woote tey ba tax ñëpp daal di ko ciy fekk si monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall mi ngi noonu Mouhamadou Diagne si Meng mi ngi noonu Abdoulaye Ndiaye Ngalgu mi ngi noonu euh, responsable politique yi ci waawan yi ñëpp ñu ngi fi. Amadou Ba Diop see génne lool. Amadou Ba Amadou Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba. yaa ngi ànd rek ci Gamou TV. Gamou TV xam nga Amadou Ba rek moo ñu jaral lii. parce que moom dafa yaru mën naa yore dëkk bi. te suñu sëriñ yi moom la ñu ñaanal. suñu sëriñ moom la ñu ñaanal boo demee waa Touba moom la ñu ñaanal boo demee waa Tivaouane moom la ñu ñaanal waa Niassène moom taxaw leen taxaw leen mu bi tey am na solo par rapport ak ni mu demoon ci législative yi. waaw ñun ñëpp a ànd ñàkk ñàkk a xamee rek législative yi ñàkk a xam ni que ñëpp a ànd. moo ma ñu di ba mais bu ñëpp a àndee les l' ensemble des forces ñu àndee ñu da ngay gagné. jërëjëf monsieur le ministre. xam après man bu ma jógee 62 pour cent maa a gis 62 pour a def. mi ngi doon kon dégg ngeen monsieur ministre Abdou nee na 62 pour cent mooy boromam kon ci kanam tuuti ñu àndandoo ak beneen leader man noo gisee mobilisation bi tey en tant que responsable. xanaa mbé am ko mbég ak contentement. di féliciter waa Tivaouane gi yëpp. si engouement bi ak détermination bi jeunesse bi am weeru koor bi ñu génn si naaj bi di dox loolu mooy wane ni le président Amadou Ba jëral na leen ko te dëkk nag bu ñu koy tàmm dañ koy tànn jox ko ki nga xam ni am na expérience jox ki nga xam ni bopp bi am na ay bagage mais dëkk bi nag duñ ko jël di ko tayle jox ko koo xamante ni amul expérience jox ko koo xamante ne ni bu ko jëlee du xam fu muy commencé loolu moo nous ñu am suñu courage ak suñu détermination and ak le président Amadou Ba pour mu redresser Sénégal Le bu rafet bi président Macky Sall liggéey woon ci Sénégal mu mën koo avec succès. kon yaakaar dëgër na ni di ngeen fal Amadou Ba. Inch'Allah, nous allons ko faire. ak avec la manière parce que bëgg nañu tey liy fal Amadou Ba Tivaouane joué si rôle bu am solo moo tax tey jii ñu ànd def démonstration de force pour wane ni Tivaouane le président Amadou Ba est là le président Amadou Ba est le président du et le candidat du peuple que ñu ñaanal ko incha allah 2024 mu jël réew mi. jërëjëf Sow kon jaar bi mu fi jaar. am na ñu ko interprété neneen. moo tax ñu ni woon ñun dañu nekkoon ci liggéeyu terrain. am na lu ñu liggéey. li ñu liggéey commencé nañ ko moo tax tey ñu jug ni dañ koy wan waa dëkk bi ba ñu xam ni vraiment fii Amadou Ba moo ko moom moo tax an ñëpp àndandoo pour wan waa Tiwaawan que ni luy jot jot na ndaxte fal Amadou Ba yitte la fal Amadou Ba defi la fal Amadou Ba njariñu Sénégal la njariñu Sénégal la ndaxte am na loo xam président Macky Sall commencé na ko te waa Tiwaawan xam nañ ci dara te loolu loolu lañ bëgg a yeggale ak Amadou Ba njariñu Sénégal la ndaxte réew boo koy jox danga ko jox ko am expérience loolu moo am solo moo tax ñu ngi ñaax surtout xale yi xale yi ñu ngi leen di ñaax nañu xam ni lii ñu ne du ay caaxaan nañu xam ni lii ñuy def du ay caaxaan nañu xam ni réew du ay pexe ki sos ak ki leen tappale moo ko yore il faut nga jox ko koo xamante ni am na jaar-jaar am na loo xamante ni xam nañ ko ci kaw àdduna bi yëpp te dëgg-dëgg ki may bañ a tudd bu ko gis démb xam ni kii mënut a yor sab quartier kuli gii rek ëpp na ci moom kuli gii rek ëpp na ci kooku kon nag maa ngi woo jeunesse su set Tiwaawan nañu xam ni luy jot jot na nañu jug jëli carte yi nañu mobiliser wu doon benn fal Amadou Ba message boobu moom laa bëggoon a joxe maa leen di gërëm jërëjëf. waa ñi ngi ci ñi ngi ciy kontaan d' abord di nuyu mbokk internet yëpp waa Jam TV di wax ni nii la war a demee l'union fait la force tey bu ñu gisee leader yëpp àndandoo. ñu nekk benn daf ñuy jox motivation ñun ndaw ñi parce que la jeunesse constitue l'âme d'une nation ñoom tey bu nekkee benn rek ñun liggéey bi day faciliter la tâche te aussi il faut que ñu répondre président pour montrer à l'opposition que nous sommes là la jeunesse consciente derrière Amadou Ba te loolu duñ ci daw dara nous sommes déterminés, engagés, dévoués, accompagner notre président Amadou mon absolument am parce que Tiawan, ni koy rek à ses réalités hormis la cité ce qu'il est mais Tiawan a ses propres réalités et les jeunes de Tiawan ne sont pas des défaillants nous sommes conscients nous sommes conscients, encore conscients qu'Amoudouba peut développer et connaître le travail du président Macky Sall. Inch'Allah, Inch'Allah, nous allons l'accompagner. Mon frère Beka peut être un témoin ordinaire. Comme nous avons fait chaque élection, nous avons commencé caravane. Nous avons fait parce que Tivaouane et Benno département Tivaouane et mooy doon benn am drapeau du 24 février gëm nañu le meilleur candidat le meilleur sorti c'est Amadou Ba. voilà donc euh, loolu di kàddu yoo xamante ni moom la euh, honorable gars yi di leen tapoter bi bu baax a baax a baax euh, gis nga noonu muy honorable Yaya Diallo moom mi nga xamante ni donc. ah Amadou Ba ah, ba ay waay ah Amadou Ba. kooku géwalu Ablaye Ndiaye Ngalgou la kenn ku nekk xam na ko xàmmee ko donc ci fépp fu nekk ma nga fa di taxaw ci wetam di ko jàppale. ñun daal bu soo nañ ànd ak Ablaye Ndiaye Ngalgou jusqu'au bout. donc oto boobu ñu ngi ciy seen jaañ si méng lañ ca seen noonu seen naa la ca Diop si waaye seen naa la ci képp koo xamante ni candidat la. Tivaouane AS wa Kuli ñu ngi si ginaaw Amadou Ba gi nga xamni ni yi nga xamante ni yeewuñ ñu xamni ñun senegal jàmm lañu xam teranga la xam xamuñu president bu am fit Benno bokku yaakar euh, donc sen caravane bi nga xamni amal nañu ko niki tay ji pour wone ni sen candidat donc don na koo xamante ni moom Amadou Ba mi nga xamanteni ñom mom lañu andal te itam mom lañu gëm te itam mom lañu fassiyene euh, liggeyal donc ñi nga xamante ni ambianceurs yi lañu muy ngëwal bi euh, moom mooy jeunesse su coalition Benno Bokk Yaakaar. Amadou Ba. Amadou ah, Ba. je crois que ni tey bu ngeen gisee mobilisation bi ñi doon wax ni le Benno n'existe plus à Tivaouane. waaw tey jii je crois que ni duñ sañu ñoo génn je crois que ni lii nii c'est une première rek. boo xam dañuy génn rek saafoonteeg dëkk bi nuyoo mais li ci kanam moom moo tax incha allah incha allah la victoire est actée la victoire est pliée au premier tour. waaw li ñu gis nii tey nag dafa dal xel première sortie coalition Amadou Ba fii ci nga gis mobilisation bu exceptionnelle mais surtout nga gis suñu candidat suñu suñu responsable politique yëpp ànd à l'unisson di wër Tivaouane di sensibiliser population Tivaouane à lii de deful lu neex ci xol mais di près di di di di ñu di ñu may xel mu dal ca xamni population Tivaouane dinañu voter Amadouba Ba mu gagné parce que moom mooy candidat bu baax bi mooy candidat bi nga xamni mo jox cër kilifa diiné yi ca Sénégal dëkku diiné la dëkku tariixa la ku faalewul suñu sëriñ yi ñun duñ la jox suñu réew ku amul xam-xam duñ la jox suñu réew ku amul dal duñ la jox suñu réew kuy sos duñ la jox suñu réew. tay ñun ñep contane nan ci caravane bi nga xamni suñu leader and nañu genn ma sha allah gëna dalal suñu xel ñun defuñu dina jàppnu ñun xam nañ fi ñuy teg suñu tànk li fi président liggéey ci fukki at ak ñaar yi du nu bàyyi muy yàqu du nu bàyyi muy naax saay. dañuy ànd ak euh, leader yi ndax keroog yow yi. waaw waaw leader yi laaj gis nañ leen Lamine Diouf a ngi nii je suis là ñëw na ànd ak directeur SENTER Abdou Ndéné Diagne ngi fi Yaya ngi fi Matar Diouf a ngi fi Lamina Thiandoum a ngi fi Ablaye Ndiaye Ngalgu sama sama sama sama leader a ngi fi tey ñëpp génn nañ ñu def caravane boo xam dox pour wan li gën ci Sénégal Amadou Ba la ndax mooy fiti président président bu baax. gis nañu Lamine moo nekk noonu moom it ànd ak kii di Abdou Ndéné Sall ci biir otoom. ànd ak père Modou Ñing moom it ma nga ne la ca ginnaawu ak leneen donc loolu la am tey jii fii nii yi donc pour wane ni rek ci euh, waawan dafa ay ay leader am dañu rek pour wan askan bi actuellement bañ ko këf xale yi bañ ko leen fëkk mooy ñu voteel ki nga xam ne moo mën a yeggale projet yi am solo yi nga xam ni président Macky Sall tàmbali na ko waa Sénégal gi yëpp tak si seen bët rawatina nag élection yi ñëpp war nañ ci bàyyi xel dafay am benn moment bu crucial ci dundu Sénégal muy lan fu ñuy war a exploiter pétrole ak gaz à partir de 2024 ku xam taarix xam histoire xam dëkk bu pétrole a gaz génn dootu leen fa wét terroristes yi dinañ fa ñëw narcotrafiquants yi dinañ fa ñëw salafistes yi dinañ fa ñëw ñëpp dinañ ñëw pour fexe jël seen nit teg ko ci bopp bi lépp luy exploitation ci wàllu boobu ñu jël ko génne ko Sénégal yóbbu ko feneen moo dal pays yu bari moo dal Gabon moo dal Nigéria ñun nag olof day faral di wax ni ku muus ren dañ laa naxoon daaw ñooñ ñu naxoon ñu jàngat si ñoom lañ leen naxee woon ñu xam ko président Macky Sall taxaw jàmmaarloo ak ñoom ne leen loolu du fi amee soo gisee si mujjanti lawu nekkam ci Sénégal tubaab yi bëggatuñ ko dégg bëggatuñu waxtaan ak moom parce que xam nañ ni lii nga xamante ni mooy pétrole ak gaz ñag na ko ñag boo xam ni Sénégal rek moo ciy jariñu loolu nag ku xam nam ko ñage mën ko téye mën ko sécuriser mooy le président de la république Amadou Ba incha allahu taala le 24. 1 million d'emplois la prévoir pour les jeunes jigen ñu outal len banque bo xam 150 milliards la ci def màggat yi mu outal len li ñu wax prestation vieillesse manam ku am juroom benn fukk ak juroom weer bu dé mu am lu mu warlo ak yow mais lolu yëpp ñu lal koy tal moy jam sécurité bu Sénégal infrastructure également jëm kanam mais li di suñu ay valeur wek mag ñi ñu bàyyi len fi lañ doon joué buñ doon jouer dem ak barki dem ñu jouer ko mais tay nak ni nga ko Matar xel dal na Tivaouane wan nañ na ni le 24 incha allah ni ko bëggee ñun seeni doom nañ ko defal mooy voté ki ñu tax a jóg muy le président Amadou Ba. voté Amadou Ba mooy suñu yokkute le président Amadou Ba ci li nga xam ne moom la doon bañ ko tey teggeeguñu ko ci ci ci ci taal kon dara tardé wul te lépp de continuité lay doon Amadou Ba bu fekkee ne dafa ni salaamaaleykum ñu ni ko lool nar mu ni cent mu ni cent cinquante milliards lay dugal ci banque alwayo ko jigéen ñi. dootuñu demati fenn ñu daleen xooxatal ñu ni ko lan nga war lan nga nar mu ne un million laa bëgg ci emploi jox ko sama jeunesse ñu ni ko lan nga nar mu ne fa tabaarakal macha allah mag mu fi nekk dinaa la jàppale nga am retraite ñu ni ko lan nga nar mu ne je pense je travaillerai pour la jeunesse je penserai à la jeunesse et je continuerai le travail depuis du président Macky Sall bi xam ni bi mu tàllalee tali yi ubbi hôpitaux yi xotti euh, université yi defal lépp ba mu baax xale yoo ci des nit ñee ci des kon nag loolu président Macky Sall bëggoon a continuer moom laa koy continuer man Amadou Ba du ma dellu ginnaaw danaa taxaw ak sama réew jàppale mag ñi jàppale ndaw ñi jàppale xale yi jàppale ñëpp fa tabaarakàlla macha ñuy demander nag à la population tina tivaouanoise tout le département de Tivaouane rawatina commune Tivaouane ñu àndandoo ñoom ñëpp comme ni ñu àndandoowee ñun leader yi bokk ndey bokk baay le 24 ñu taxaw suba teel teel a voté bu ñu dogoo daal di jubilé yal nañu yàlla defal loolu jaay Seydina Mohamed. ah mais kontaan kontaan trop parce que vraiment il était temps. ñëpp ñu ngi doon jóg di di def ay campagne yooyu ñun ñu toog rek vraiment di xaar mais bi ñu édifié woo vraiment wan nañu Tivaouane yëpp ne ñun le Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ak fii Tivaouane fii moom ñun ñoo ko moo tax démonstration de force bi ñu def ko ak les leaders vraiment ñi ngi sant ñi nga xam ne déplacé wu nañ ñëpp tey nag ñu traduire ko en vote ci jour vote ba incha allah la Benno Bokk Yaakaar daal di gagné avec Amadou Ba. tey jii wax dëgg yàlla génn nañu wër dëkk bi mais li ñu neex mooy fu ñu romb rek wan nañu ñu choix bi ngeen xam ne moom ngeen ñu dugal xam nañ bu gën te le 24 dinañ ko voté gis nga ko nag leader Refane man Diop si mi ngi nii Ablaye Nous nañ wan waa ñu ñun ñëpp ñoo bok nangu de Macky le 24 dinañ ko on a satisfaisant par rapport à la démonstration de xam nga def quand les chats ne sont pas là les souris dansent. donc ça fait une semaine wacc ñu terrain bi. mais biñu waccé gis nañ la xut nañ donc japp nañ ni wone tay nañ ni victoire bi lérna au premier tour donc moi je pense monsieur le maire Sur le maire li li am solo mooy ñu consolider lii. c'est ça képp koo xam leader nga képp koo xam ni militant nga. bu dog jotee dugal si biir kër yi. wax ak kan nit ñi gannaaw caravane bi. ñëpp nañ dugg si kër yi. fii ba élection yi jot incha proximité porte à porte incha union bi wax monsieur le maire. Ah? man xam nga wax. <laughs> Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba cinquième président. Ah. pour dëkk bi ñun. la grande coalition est toujours là benn Bokk Yaakaar tey la gën a nekk benn tey la gën a am doole tey la gën a am yéene ci askan bi loolu lañ ko bëggoon a wan tey Tivaouane responsable yëpp génn nañu pour wan ni ñun ñëpp ñoo ngi ci ginnaaw Amadou Ba di ñaan waa Tivaouane yëpp aussi ñu ànd ci ginaaw Amadou Ba li mu wax fii bërki démb doy na xel nee na bi ma duggee Tivaouane ziar maam El Hadji Malick ziar sëñ Babacar ak njabootam bi ma génnee sama xel dafa dal fii la ko wax bi ci des mu ni président Macky Sall def na ci Tivaouane président Macky Sall def na ci Tivaouane waaye fas yéene naa lu mu def benn dinaa ko def juróom ci Tivaouane loolu la Amadou Ba wax fii bu mu fi ñëwee barki démb dani bu mu ñëwee Tivaouane tëdd fi xëy suba dugg ci xabru yi ziar maam El Hadj Malick ziar sëriñ Babacar ziar njaboot gi dafa gën xam ne xelam gën na dal ni fii lépp président Macky Sall jox na cëru këru diina yi cër benn bu mu leen jox dinaa ci teg ñett muy ñeent ma jox leen ko ni lu mu def Tivaouane bu defee benn dina ñëw moom def ñeent ndax Tivaouane dafa bokk ci ay priorité am comme cité religieuse yëpp ñoo ngi gërëm ñëpp ñuy participer ci match bi parce que biñ ko xalaatee léegi vingt quatre heures la mais macha allah ñëpp ñëw nañu wana engagement wana dévouement wane ñun ñëpp and nañu nekk benn pour Inshallah, le 24 ñu dox majorité suñu candidat Amadou Ba Falco, 5 cinquième président de la République du Sénégal.